Well, uh... mel na nii wateef wi àgg na si doq bi ñu ngi jaajëfal ñépp di am kontaan ci ñépp taw bëgg na fees nii ñu ngi jaajëfal ñëpp taw mi taw lañ gën a fees wax dëgg neex yàlla sot sot si taw la gën a kii jotaay bi neex na lool te it jotaay bi barke na lool kilifa yi wane nañ fi lu rëy rëy ndax jàng bi bokkul ci jàng yu yomb yi léegi nag ni ñuy def mooy dinañ jox suñ bokk Xuseynu Soxna nga xam ne moo jiite ñi organise lii moom it yàlla may na ko ci baat bi ci façon ngi njàngin wii mën naa wax ne bëri na ay xale yu toog fii moo leen di ñaax di leen tàggat di jàng bu mel nii ñun ñépp ñu gën koo xamee ci Abdul Basit Gambia bu ñu waxee Abdoul Basit fii ci Gambia rawatina ci suñcu alaaji xel yépp dana daj suñ mbokk mii di Xuseyn Soxna kon ni ñuy def rek fii bay xukkaam yi di pare danañ ko jox moom it five minutes mu jàngal ñu ay aaya ci xeetu njàng wile di jaajëfal Sunrise TV suñu xarit alxaaji ndimbalaan jiite ko mu ànd suñu xarit Ibrahim Thiam di sàkku ci mbooloo bi yépp ñu leen di ñaanal kon Hussein soxna mun nga ñëw fal tatafaddal mashkuran majura moom nag bëggut jàng waaye soppeem yi ak fans xam nga ne mu ngi am ay fans ci Gambia ñun ñëpp fansam leen waaye am na ñoo xamante ne dañ koo bañ ba ubbil ko groupe tuddee ko Abdul Basit Gambia groupe ñooñu nag ñoo ñëw ba ci man ñu ne ma benn mu jàng wala ñu ñibbi may la ñibbi leen am ku ñëw ne ma benn mu jàng

No. gën na neex gis nga Baye baraam moom dafa xaaloon Baye Baram ci biti la dajeeg man ne ma man kii rek moo may rek wallaay ndeysaan gis nga gis nga ko <laughs> te war a dëgg kii moo ko rey wallaay ndeysaan jërëjëf waay sëriñ kon bi mu ngi am programme ci kaw waaye gis nga bi mu déggee ci la wàcc moom it ñu ngi koy jaajëfal kon Xuseyni barakallahu fiik mbokk yi ñu ngi jaajëfal ñépp programme bi amut kenn ku koy sponsor moo tax ñi ñi wiin sax joxuñ leen xaalis bu bari waaye ñoom sax ñi bokk ci musaabaqa bi am na ci ñoo xamante ne ñoo jël seen xaalis joxuñu kon ñoom bokkuñ pour pour xaalis am na ci ñoo xamante ni ñoo jël seen xaalis jox ñu kon ñooñu bokkuñ pour xaalis ñun tamit organise suñ lii pour xaalis dañ ko organise pour encourage encourage ndaw yi ah pour lan ñu gën a góorgóorlu ci jàng mu mel nii wala du du encourage foog nga encouragé kun ñu encouragé ndaw yi de ñaari karim fa mu doon ci benn ah ñaari baax mu ngóob kon ñu encouragé ndaw yi pour ñu gën a góorgóorlu ci alquran ñu ngi jaajëfal suñu kilifa Ismaïla Cissé mi nga xamante ne moo jiite INSIDE jox nañu 10000 dalasis ndax daf ñu laaj jaayise yi ñaata ngeen kalkin ñu ne ko wax dëgg neexee la day ci suñ man-man lañ kalkine ñu waroon koo séddale ñetti ñi wiin ñu séddale leen ten thousand ba nine thousand mu ne ñu kon man maa enu ten thousand boobu ñu ngi koy jaajëfal di ku baax ñu sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu ngi jaajëfal tamit shabaab yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak Hussein ñoom it biñ ootee mitin ne war nañoo liggéeyal alquran naka la ñuy def ñoom ñëpp ñu ne lu ngeen xalaat baax na ñu ne kuñ ndimbal da ciy fekk loxoy borom ku nekk ci ñun na fay 500 dalasis ñaari weer rek nga lijjanti ci 500 dalasis pour musaabaqa bi soxsi te ñi fa bokk ñépp ñu ngay dem Gambia Koleya xam ngeen Gambia Koleya maam Ngoor Caam xam na ko Maymuna Caam xam no ko Zeynab li ñoom xam nañ Gambia Koleya Ousmane mi mos na ko Gambia Koleya ah, mooy ak collège waaw ñoom ñëpp foofu la ñuy dem waaye góor góorgóorlu nañ ba indi xaalis am ñoo xamante ne indi neen hundred dalasi am ñoo xamante ne indi neen two hundred ci ñuy musaabaqa ni am nañu indi five hundred dalasi am ñoo xamante ne doole lañ jël doole samedi ak dimanche ñu takk seen dàll tàmbalee marché Costorone jëm Kunkujan topp bitig yi ñenn ñuy joxe five dalasi yu rafet ñenn ñuy joxe five dalasi yu yu kotteeku kotteeku ñiy wax kotteeku ñooy joxe five dalasi yu kotteeku wallaay ndeysaan ñëpp a baax def leen noonu def nañ ko ñaari dimanche ba ñetti dimanche ay jigéen ay góor ñooy dajale ñi jël saayit bi ñi jël saayit bi dugg ci bitig yi yenn saa yi ñu leen laan ah yéen mbiru leen ni ci alquran de ñu xuloo xuloo yu métti ndax ñoom ñi gën a bëri samay taalibe leen ay rasta leen faale wuñ ay xaftaana ki mbaxana wax naa leen ko de may leen su ngeen di dem sol leen xaftaan ngeen nuru nuru lu jàngkati alquran ñu ne ma ne yaay suñ ustaas may leen ustaas bandi moom ko koy roy di nga sonn de waaye nag macha allah ñu ngi jaajëfal ñëpp mënuñoo tudd tur yëpp waaye suñ tuddee maam góor Ousmane Tall Zeynab Ly Maymuna Thiam Maymuna Pël ñoom Oustaza Ndiaye waaw kenn mun ñoom dégg nga Alqasim Gueye Adama Qasim Gueye ñoom Hawa ñoom Fatima kenn desul xale ñoom ñoo dajaloo pour jéem a teral Alqur'an pour jéem a tarangal Alqur'an wax leen jaaraama. wax leen gars yi jëri ngeen jëf Ousseynou soxna waa këram bàjjanam ami soxna ñoom ñëpp jàppu nañ ci ñoom oustaz Barham Thiam ñëpp a ci jàpp baa bi daal kenn desut wax dëgg neex yàlla saafara yi bëri na donte ne xaalis bi bariwul waaye ñëpp jàpp nañ ci waa këru saa jooju kay ñoom ñoo ko jiite kenn ko jiite ñoom ñëpp suñu waa kër yi moom duñ leen tudd ay këru saas jéejo kër ñoom soxna kundaa ñooñu tudd ma leen ndax ñoo jiite liggéey ñu doon togg ceeb yi yéen mu mujjee ñëw mbóote ngeen ceeb next next time ngeen teel a ceeb yoo xamante ne ay waay ceeb yi la ay waay ceeb yi la ceeb yi de lim dàqee alquran bi bëriwut bëriwut bëriwut non bëriwut nag dëgg na yàlla su ko defee kun mbokk yi alquran dañ ko war a yitteel alquran dafa jot ñu yitteel ko ndax taraangay jullit ci alquran la nekk jullit su bëggee tedd ci alquran lay ngoyaan alquran lay jàpp su bëggee yëkkatiku wala réewam yëkkatiku wala société am yëkkatiku ci alquran lay jàpp alquran def ñu ne وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون لذكر لشرف لك لأن القرآن بي من القرآن آه. من يو ينتبه موسى تتنغل تي أبدنا موسى تتنغل تي الآخرة ينتبه نكو من كن رك من يكو ولي قومك أكسنيون وغامبي وسنغال وموريتاني سن بغي يكتيكو بمن فرنسا ci lan la ñuy jàpp mu ne ko ci alquran yeneen bi ne ko waaw su ma ñoñ suñ dëgëree bopp ba bàyyi fi alquran luy xew mu ne wallahi fa sawfa tusaluun fa sawfa tusaluun di leen di leen laaj naka ngeen def ak alquran dañuy commencé one by one ku nekk di nga taxaw ci kanam yàlla mu ne la naka nga meloon ak alquran looy tontu loo doon defal ñoñ alquran ñu jógee koo fa dem ci société bi joge ko fa dem ci gouvernement bi joge ko fa dem ci parlement bi ñoom ñëpp yàlla dina len laaj fardan wa jamaatan lan ngeen liggéeyal alquran mané bok nit ñi moom man nañu tont mu rafet tuuti way wax dëgg neex yàlla amna na gouvernement yoo xamante duñ tont duñ tont de سيدنا جوار yenn yàlla yërëm ko xam ngeen ñaata at la fi am 29 years ba 30 years kan ci yéen moo mën a joxoñ ne daara bii jawaram moo ko tabax wax leen kan moo mën a joxoñ ne daara bële jawara mi fi am ci government bi 29 years ba 32 ba 31 years moo fi tabax daara ji kenn ci yéen mënu ko ku fi jógee ko tamit dem toog ak waajuram mu laaj ko mënu ko Seydunaa Yaaya Jàmme yal na yàlla sàmm ko nekk na fi 22 years 22 amut benn daara bum sam ci seven région yi amut wala am na tabax na jàkka macha allah def na ay compétition moom moo tene moom wax dëgg a neex yàlla ndax soo gisee tey doomi Gambia mën a génn di dem ci biti di indi ndam loolu compétition yi mu doon def di teg ay million gën naa góor gën naa ñaax jàngalekat yi ak jàngkat yi wax dëgg neex yàlla wax dëgg neex yàlla teral na alquran nag waaye nag teral ga àggul ci tabax daara 22 years Maulana Jawara déggal Maulana naka Baro Maulana Baro ñaata at la fi am yenn yàlla sàmm ko. aar ko te ee nekk na fi ñaata at defe naa ne amagum na fi juróom ndax 16 17 18 19 20 21 ba 22 ah ñu dugg léegi ci 23 amagul daara bum samp allahu akbar amagul daara bum samp bum samp allahu akbar nguuram gi bi ñuy waxtaan ak ki jiite njànga ak njàngale ci palimen bi biñ ko waaw lan nga palaan pour ñuy jàng arab waxuñ ko alquran moom kay déedéet arab lañ ko ñuy jàng arab ndax da palaan pour tabaxal leen ay université mu ne bokkagut ci palaan loolu la wax mu ne bokkagut ci palaan bi dugaluñ ko ci palaan bi ana wa innahu la dikrun laka wa li qawmika ana fa sawfa tusaluun ana mu waaye da ngeen foog ne yéen it leen laaj yéen a noppi rek allahu akbar te suma ma sëriñ Baye Ñas waxoon na ko nee na jàpp leen alquran ak sunna yonent yi gis nga waxu waxu waxu naar bu naa feqa Baye Niass ne teg leen fële waxu tubaab bu weddi yàlla Baye Niass ne teg leen fële ñaari misaal la indi naar bu naa feqa day yàq réew day tax nga tappet loo wax mu ne yonent bi nee na na leen bàyyi na leen wax wax bu rafet nga nekk tappet nag doo waxati dëgg tubaab bu weddi yàlla daf lay def kàccoor بينس نينيار ني نيب نغن لن تمسك بأبيال النبي متابعا مذاهبه أما المحدثات فلا لا وتغنيك عن دستور كرز أرابل وخالد أرابل وتغنيك عن جون يروم محالا تبابلا ينكو باي وخل من فما نابليونا أو لنين ومركز بموحى إليهم ينكونوني دف باي ونجو خلي عنك خبالا خلي عنك خبالا ينكو باي لنجو جاب كتاب من الله الجليل جلاله ينكو باي تيري بومباب في جوكيكو من قديم وباق لا يخاف زوالا تلاه الفتى المأمون جهرا ويقظة kenn du Serigne Baye waxoon nañu ko nee nañu jàpp leen seen téere bi moom ngeen fi am waaye ñun ñu bàyyi ko jàpp waxu joon ak waxu nablion dama naan gis nga school arabe yi foofu lañ amee njuum te gis nga nablion yéen a ngi koy jàng ci adab nablion dañ leen ko jàngal mu mel ni ku baax liñ jàng ñun ci adab nablion dafa mel ni waliyu waaye su ngeen xamoon ñaata junne doomu aadama la nablion rey ci misra waaye loolu kenn du ko bind ci adab dañ naan moo fi indi maktaba moo fi indi tabaa moo fi indi nangam waaye lim ray ci doomam jullit bala muy indi loolu ay junne la doo leen ko jàng moo tax ngeen bëgg ko am na ñu foog ne sax jullit la mbokk yi nañ itteel alquran ki joxe suñ alal ngeen alquran ki góor góorgóorlu ci dugal xale yi ñu jàng alquran خالي نجلن جنغل القرآن بينس الله خد أحبتي فلترسل الولدان كي يقرأوا وقت الصبا القرآن يقولن خالي نجنغ القرآن جمونو جنين نكنداو نخ القرآن سوكم مني مكالكو مترن لكي أدنى ترن لفن في الآخرة ترن لكي الآخرة ويكدو أخونكو دفنا فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك اهل الله والصفوه العلى او الصفوه الملا الله أكبر القرآن رك مؤمن لي إيه؟ إذن الشاطبية جاي القرآن يوم يوكو مكال سكرة في كن بكي يوم لين دي جاي فل نجوك الأستاذ بابا كان مم يوم تمن يوم أمون كاتب لك نتو تحكيم نجوك كوبين يوم نجوك نيو تيجا إزينك نجيب نوكي وات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الفائز برضو الله واو <laughs> waaw ñi ngi seere gaay waay seen xartaa yi wax ji am na solo musaabaqa bi tey ñi ngi gërëm sëñ Ousseynou ak gaay yi ko programme yëpp donc ko waxee musaabaqa bi sëñ Baro moo ko waroon taxawaalee Baro Baro moo ko waroon taxawee topp ko majlis aala nda li ne ko bala ñu commencé ndax nu ko ji nga yaayee jàmmee force mi euh, force musaabaqa ñi gañ million yaay jaay moo ko fi jox di xam naa gaay yi nag ay ay support yaay ñoo fi gën a ñoo fi bëri ñoo mbàkke waaye million yi millions ku ko gañ mu sëñ mu si daara bi Zeynab la loolu yaay jaay moo ko fi joxe kon il faut ñu gërëm ko kon musaabaqa yi mel nii la mel euh, président moo ko war a taxawee da ñun dañuy jël sin doom yi da lay yóbbu kon dañ leen war a tàggat si lii kon ñu ngi gërëm ñoom Ousseynou ak gaa yi ko gaa yi ko jàppale yëpp si musaabaqa bi ndax lii dañ ko war a tàggat booy ndax ñoom dañ mën a dem si biti da indi ay ndam euh, beneen bi euh, lu ma bëgg a wax rek mooy mu laaxar gendeeku mooy si musaabaqa bi Euh, war nañu gën a tàggat seen bopp deen li mu jasar yi loolu la waxoon rek illa riyaadatu mri'in bu fakki yi illa riyaadatu mri'in bu fakki yi waaw jàng tajwid mu neex jàng abdu baas mu neex mi ne tireen rek tireen rek fii ku la fi dàq ku la fi dàq football moo la dàq tireen naka Krista Messi tireen rek moo leen ko may yeneen pile fi génnoon ñi ñu s'intéressé jeeg ji jeexal leen waaye ne la téye seen bopp de tireen Balla Gaye ak ñoom wala ñi de seen seen koo ji dañ la en loolu diis ba ñuy jooy ba ñuy jooy jàng Abdul Baas bii da ngaa gis ñu ko jàng jooy kon yéen tamit booy yokku leen seen doole yokku leen seen euh, seen kattan waaw day ko dañ ko war a tiren dee leen déglu jàng ngeen man ko ji nga sëñ sëñ Diop sëñ Ablaye Diop il faut que am na fu ñuy égalee am na fu ñuy wàccee man nag faruma si moom man moom faruma si waaye am na ni koy égalee am na ni ko wàccee ñoo ko seen soxna il faut ngeen am si gars yi tëral leen wala ngeen a déglu yeneen kaset il faut am na fu ñuy égalee am na ni ñu koy wàccee ba pare demee war nañu boole tey ay ayaat man fii foog naa ñu fi jàng yëpp kenn boole fi aaya de te sit maqaama dafa war a egg ñi boole ay aaya moo xam ñu guddi yi la wala yu gàtt yi la waaw il faut ñi boole ay aaya yooyu yëpp lu la ko may nag mooy tëral rek tëral tëral rek moo la ko may waaw kon nañ jëm a mi daf fi daf fi waaw nee na fi trop kon war nañoo gën a góor góorgóorlu nga xamee na ay musaabaqaat musaabaqaat ah, mën na fee feeñ kon ñu ngi gërëm ñëpp nga xamee ne seen loxo dugg na si wàllu musaabaqa bi rek yàlla fay leen wa jasaakumullahu xayran comme ni ko Mawlana Babacar waxee rek nañ gën a góorgóorlu di déglu tamit jàngkat yi waaye di train suñ bopp nga bu nga toogee fi fekkee ne doo dee train da ngay sonn waaye nag sooy train doo sonn soo ko miinee rek dafay jeex ñu ngi jaajëfal ñi jàpp ci programme bi yëpp madame Thiam mu ngi ba Canada yónnee nañu xaalis bu takk two thousand dalasis moom tamit jàpp ko def ko ci programme bi ñu koy jaajëfal di jaajëfal tamit Ismaïla Cissé comme ni ñu ko waxee moom moo ñu dimbale ci jaayise yi jox nañu ten thousand waa Mahad mu ngi leen di jaajëfal bàyyuñ kenn fàttewuñ kenn ñu jàpp ci programme bi yëpp jigéen yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci togg bi nekk ci kéeg bi nekk ci naan wi ak ñi fi wëy Sunrise TV ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal insha allah kon ni ñuy def rek mooy dinañ jox xukkaam yi ñu ngi leen fi amaloon ñoom it luñ leen di njukkalee rek doonte ne bëriwut ñu jox leen ko ñoom tamit ñu barkeloo ko ci jotaay bi insha allah ñu jox al ustaz xayran macha allah. ñu oo euh, Seyid Abdoulaye Ndiaye moom tamit ñu koy sant di ko gëm ci taxawaayam ndaw leen yoo xamante ne ndeysaan yu yu baax la ñu oyof leen foo leen woo rek ñu dëkk ñu koy jaajëfal ñu sàkk ci mbooloo mi ñu ñaanal leen yàlla yàlla defal leen tawfiq ak taysiir ñu oo asayid allo ok ñu jox ak Seyid Babacar Hassan Thiam moom it groupe bi ñu koy jaajëfal di ko ñaanal mu nekk oyof jàng na ba àgg magistrat ci Saoudia waaye ndaw yi fu mu ko oree fekk si leen soo ko ooyee ci jotaay yi mu ñëw soo ko ooyee conférence mu ñëw soo ko ooyee football sax mu ñëw wallahi oustaz oyof la wallahi dama xam ñu koy jaajëfal di ko ñaanal da leen ko gis nii nekkul alxuraan rek la mën de mooy Sadio Mané Mané Sadio. ñu oo Abdoulaye Diop mu joxal ñu kii shahada euh, Aboubacar Sakho Aboubacar Sakho te Abdoulaye Diop bi Abdoulaye Sakho يا محمد بوي محمد بوي بوي أنسماني أنسماني أنسماني سيدي مختار يوني يوني Cheikh Tidiane Salihou Mbaye Siise ñoon Siise Euh, Omar Ahmed Thiam oustaz jox ñu waaw ku jiite Sunrise TV moo koy jox shahadam alxaaji Dimbala Seri Kumba Thiam ñu oo Babacar Sidi Ndiaye Cheikh ba si Ibrahima Diédhiou Ousseynou si Ousseynou soxna moo koy dox mooy Seyku Joola mu jox Seyku Joola Ali Ibrahim Soxna ñoo Oustaz Salah yuqaddim lahu shahadatahu shahada El Hadj Poli le Boussi Mouhamed Ndiaye Mouhamed Ndiaye ñu oo Mambour saat amaliyah saat amaliyah yo Usman punya dok, Usman. Cheikh Ibrahim Ly Cheikh Ibrahim ñuy القاسم كان Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Mbaye Abdoulaye Barham Diop ah eh, ñu oo suñu sëriñ Cheikh Omar Lo ñoo joxal ñu ko gis nga dijemaan bi nag bayti baay boo yëkkati mu topp day ci bàyyi boo yëkkati mu topp la moo tax kii waxtaan ci kanamam seen Ba Moussa Diallo. seen soxla jox ko jaayis léegi nag gannaaw loola Babali Nggih عبد الله بن léegi nag bala ñuy joxe ku jël nombre taat wala position taat xam nga yéen English da ngeen soof lu ñu wax rek ne du noonu fii ngeen di toog su may waare ci télé bi am na jàngat tubaab damaa ko oustaz ba ku la jàngat English ma ne ko ah lu ko ma Gana laa nekkoon de man ma yow ah nu mu tuddati solve problème nga naan self problème ma ne ko boobu nag Gambie laa ko jàngee du Gambie am na ci ñu bokkoon ku bëgg a jox lu sey soxna Jaa lu tax mu bëgg koo jox jaayisa mu ne mu ngi doog a gis lii ci Gambia te Ousseynou Soxna mi mooy ki ko organise kon ñu oo ko mu joxal ñu Ousseynou Soxna jaayisam fal yatafaddal ñoo ci soxna يا قارئ القرآن ربك ماشع فاهنا لما في الروض من الكتاب الله أكبر يا قارئ القرآن مجد مراتبا التكبير solal ko solal بعزة ومهابة يا قارئ القرآن حقا عن به نعم الأليف ونعم خير الجاد آه هلته الفصحاء والبلغاء إذ ما شاء سمعوا كلاما ليس بالأشعار قالوا هو الذكر الذي يعلو ولا يعلى عليه ومعه الأسرار فهمهم الآينة الحديث بأنهم أهل الإله الواهب القهار الله والماهرون المتقنون بالتلاوة فمع الكرام وثلة الأبرار ولمن قال متابعتي عن اجر والقدر ورد الحديث به عن المختار ما شاء الله الله يرفع من يجد كتابه والله واضع حبه الانسان ما شاء الله لكن لن يجب احمد تريميكس عمل المبغى باتري نوي سكر فينك مدخلين نيوين وعبارة bala ma koy joxe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 maa ngi jégalu ci kàddu yu may sànni nii gannaaw kàddu suñu sëriñ mooy misri euh, dafa nekk dafa am xaatira bu ma ñëwee léegi mooy benn xelaat bu rot suma xel ma bañ koy nëbbu ngir ne su ko nëbbee mun naa am mu war a jëriñee te du jëriñee moo tax ma koy sànni kon ñu ngi jégalu ci kàddu yu baax euh, kàddu yi mooy bu njëkk euh, ñu ñëpp dañ war a bàyyi xel ne Gambia lii mooy first time man ma gis fi musabaqa bu mel nii muy musaabaqa tilaawa fekkee ne am na keneen koo gis nag na ma wax waaye man mos ma koy gis mu ngi soog am kon lii wut kon ñu ngi ndokkeel ñi nga xam ne ñoo ko taxawee ku si jiitu mooy Ousseynou Soxna man gis naa ne incha albaari lii dina passé fii gëm naa ne dinañ toog ay jamono dinañ dajal nit ñi ñu. جوجي اي ريو ني باغال لين تيكت ني نيو غامبيا في ني ديف مسابقه تلاوه بي تا جمعيه بي مو كاي ورب العرش الله نيكو واخ بو خامني نيكو واخ بو خامني كوم واخي غالاو لا ولا واخ مي داما توك ما moom mooy nomatu nomatu ñu bokkoon dëgg-dëgg ay génn lañ amul kenn koo xam ne toog na fii te lu muy def mënut waaye suñu waxee musaabaqa jiitu wante kon lu may ñaan mooy su natiija yi génnee bu kenn gis boppam soo gisee sa bopp yàlla mele parce que yàlla bëggut kuy gis boppam kon su natiija yi génnee na nga régler nga xam ne loolu la yàlla dogal si yow ak loo mën a def nag euh, مسابقة لكن لو خمني لو لو لو نخلة لو بيوا كم تقول نيجاميا دني أم مسابقة يو خمني دني سوغلا نياري نيت ميدام الجاميا بدي مريو كن كو خمني دفعي بوك في مسابقة الحف مي مكر القرآن أكن كو خمني دفعي بوك كم مسابقة بي والجاميا أما كن كو خمني دمال نل مسابقة بي مو إني في دم أما كن ولا من يلوك مكمن gis nañ fi ñu dem jooni musaabaqa si biti musaabaqa mokkal indi fi ay ndam yu deex gis ngeen suma sëriñ fii doo saoudia toog si kanam arab yëpp ñoom Sulays ñoom Xudayfi ah ñoom Yaasir Dawsari bu ñuy jàngee alquran mu toog fa jàng alquran ni ku ñu kuk arab yëpp wër nga jël nooma si musaabaqa boo xam ne lu bokk si nit yi ëpp hundred nit doomi Gambie def loolu kon loolu reyna rëy la waaye léegi dafa jot ñu am ñi nga xam ne dañuy dem si biti def musabaqa tilaawa ñu nit ñu dam dafa jot wala jotut jot na wala jotut kon jamiyatu shababil xayr ubbil nañu buntu boobu te maa ko wax incha allah baari dinañ fi am ñoo xam ne dinañ dem si biti indi ñu dam parce que luy commencé rek dafa am fu muy commencé ndànk-ndànk di yott ndànk-ndànk yott ndànk-ndànk ba luy ñëw ñëw. man yàlla dogal na dem naa si musaabaqa ñuy tuddee tilaawa benn ba ñaar ba ñett waaye xaw ma dara si lii suma ma foos yoon bu ma dem xaw ma dara waaye bu ma demee ñu bokkoon si musaabaqa bi dem neen ba hundred something daanaka ñëpp ay naar leen waaye bu ma demee yàlla dogaloon na ma jël foofu ten noo ma ten te ma dara lu koy gaa defee tus ba min aynin aaniya ma jël ten iseenu soxna mi su demoon ku la lay am ñu toog fii jàng nga xam ne ñooma mun téeméeri junne yoon man ma dem ma am ten ñoom suñu demoon lu ñu am kon kay léegi jot nag ñu gën a préparé ñu buñ xeeb suñu bopp buñ yaakaar ne naari ñooñu dàq jàng kon maa ngi jégalu si kàddu yi nekkutoon ma boo sànni waaye ci xol bi la nekk daal bés naa ko ba sonn ma ne il faut rek ma joxe ko ngir nit ñi jëriñu wa hada wa sallallahu ala nabiyil muxtar wa alihi wa ashabi al axiyar mun ngaa jokkoo Ousseynou Soxna incha allah dina am meeting buñ oote ñu dëral ay charta ñëpp ñu xam wala nga kool ci sama nombre seven nine two one three two nine seven nine two one three two nine soo koolee boobu incha allah dinañ la wax nooy def gars yi jëlee ko ñu bëri am nañu ko seven nine two uh, seven nine two one three two nine. ma gàmbee ñu wax nine déedéet nine. pare ngeen bañ a ngeen xaalis jëlal xaalis seen ku jël taat ku jël al markaz الثالث الفائز الثالث الفائز الثالث كوبايتوخ جائزا موي الاستاذ بابك بابكر فيه الفائز الثالث سخامي بابو منو بشير ابراهيم

يقرأ فيها القرآن بالتجويد في جنبه حينما كان الشيوخ يطلبون المال من الأغنياء في السعودية ويطلبون المدارس العربية أبو أبو هذا الشيخ القارئ طلب منهم أستاذا محفظا للقرآن قال لهم لا أريد مالا ولا أريد منكم شيئا إلا أن تعطوني رجلا يحفظ أولاد المسلمين القرآن فقط فاختاروا له شيخا حافظا مقرئا فجاء إلى جنبيا وزرع بذرة التجويد فبدأ الناس يقرؤون بالتجويد إنه المرحوم الإمام برهنجب المجاهد الكبير الفاني في القرآن الكريم لذلك أكرمه الله بأولاد حفظوا القرآن وأتقنوه وشاركوا في المسابقات العالمية فجاءوا لنا بنعم كثيرة أحدهم يأتينا بالمركز الأول من موريتانيا وذاك يأتي بالمركز الثاني من المغرب والآخر يأتي بالمركز الثالث من دول أخرى إنه شيخنا من دبي أحدهم أكرم أهل جامبيا بالقرآن في دبي هؤلاء أسرة القرآن كبروا لهم قولوا الله أكبر الله أكبر شكرا لكم يا أهل القرآن الله معكم يا أهل القرآن كل الفاس ليس ويتيغا خمنتر بايا بكلفة يدمي سعودية دنياني قالس كعربي di layee di layee teral ay jirim moom dafa dem ne leen ne soxlawuma seen dërëm ndeysaan te saalum saalum bu ñàkkal sas Babacar xam na soxlawuma seen xaalis yéen waa Saudiya ñu ne ko loo soxla ci ñun mu ne suñ dëkk alquran bi ngeen di jàng yéen waa Saudiya muy alquran bi wàcc ci yénent bi dafa manqué ñu ne ko waaw lu xew mu ne fayal leen ma jàngkat bu jógee ko fii ni mu mënee alquran mais na ñu seen bés mu ànd ak man ma yóbbu ko Gambia muy nit ku weex ma jox ko ay xale ku jàngale loolu rek laa soxla nit ñaa ngi ut di tabax ay étage moo mën a jàngale kat soxla ah ñu ñëw mu samp daara ñu jox ko naar naar bi di jàngale alquran bu set wecc moo ko tabax Gambia jàng tajwid moo ko njëkk a tabax Gambie moom bàyyam di jël foos bàyyam xamagu leen ko sax xam ngeen ko kay moo tax su jàngee jàng bi mu jàng um la yéen ndax yàlla it xanaa ni koy bandi yi tuumaan nekkul ci moom gars yi dañu wax ni yàlla yenn saa yi day def yëfu ségrégation maanaam day faral ñi bàyyi ñële waaye nag ku liggéeyal yàlla su la fayut sañ nga koo te yàlla suy seetaan bañ koy poñe rek tooñ ñetti moom nee na du tooñ moo tax ku liggéey mu fay moo tax ñii seen bàyyi dafa liggéey wallaay ndeysaan yal na yàlla yërëm ko yàlla xare ko aljanna mooy oustaz Barham Diop doomam yi lu nekk def nañ ko ci alquran ñii dem nañ Murtani indi foo sekoon ñii dem nañ Maroc indi foo sekoon ñii dem nañ Dubaï ci naar yu weex ya kenn sikk sa kaw seen naar yaa lain lisan ñu indi ñu ndax muy kan asseyit abdallah barham jog bali tafaddal ala almunassa الاستاذ احمد اقدم له جائزته كبر الله اكبر التكبير الله اكبر التكبير dama bëgg lu may wax ñun ñëpp ñu wax ko ay wéy la yoo xam ne Cheikh Abdallah leen ko wéyal ak ñu ànd ak moom Abdallah dama bëgg nga yëkkati sa loxo bi si kaw ñu xam ne nekkut yow la waaye alquran la yëkkati sa loxo ndeyjoor bi si kaw wa baadu wa baadu fal quranu nuurun mushriqu حامله مسدد موفق وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسول المرشد الرسول المرشد سنجي وحنا القران ما تخاو الله في فضل حفاظ القراء في فضل حفاظ القرآن المهرة في فضل حفاظ القرآن المهرة في فضل حفاظ القرآن المهرة في فضل حفاظ القرآن المهرة أنهم مع الكرام البررة أنهم مع الكرام البررة لأنه في صحف مطهرة لأنه في ثوب المطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر فالحافظ المتقن قد ساوى الملك فاستعمل الجد فمن جد ملك فاستعمل الجد الجدة فمن جد ملك فمن جد ملك في لول بوكسي واي دنجو سي واخ رك بور القران فور بون فور كون سو دافي ني ديغلو باخا باخ نتال لين كو نين تساري كو التكبير التهليل لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم موكي ني دي جاجه فلا نيب ني جاجه فلا نيب دي لن واخ ان شاء الله لو بغا ياك لو بغا ياك دي لن اورغنايزات لو مل لي ني ساكو سين ميمبل دي لن جاجه فلا نيب أمون لن دوخ وين لن دوخ دي ديف لجنة التحكيم بي أك لجنة التنظيم إكزيكتيف بي ودار الأرقام لم يب نغلن دي ديف بنان يالا فيل نولن يوم بابا نيام يوم حسين كوم يوم سيب يب دابن تليغي فقلي تليغي يب نغلن دي نعمل بباخ باخ يلا دفن التوفيق يلا دفن التيسير يلي جا دفن سنو سرين شاء عمر لو ترجم يلي جا دفن سنرايز تي في يب نغلين دي جا دفن علي جوب علي جوب علي جوب علي جوب يا قارئ القرآن هزنا راكبا ولقد حظيت بغاية الأوتار يا قارئ القرآن قد نلت العلا بعزة ومهابة ورقى ما شاء الله يا قارئ القرآن نعم الأمين ونعم خير الجاري هرست وحلف الفصحاء والبلغاء سمعوا كلاما ليس بالأشعار قالوا هو الذكر الذي يعلو ولا ما شاء الله يعلى عليه ومعدن الأسرار الحمد لله الواحد القهار ما شاء الله ما شاء الله والماهرون المتقنون تلاوته ومع الكرام وثلة الأبواب ولمن قرأ متتعترا أجر نقت ورد الحديث به عن المختار وتلاوة القرآن روحك في السماء أيضا وذكرك في مدى الأقتال فمن انتهيت فذاك منزلك الذي هو منة المولى وفضل القارئ ويجيء في يوم القيامة قائلا يا ربي ألبس قائم الأسحار فيحلى من تاج الكرامة منة وينال رضوان العرش البارئ وملائك الرحمن حتى الحوت في جوف المياه ونملة في الغار يستغفرون يستغفرون لقاضي القرآن قد أسماه رب العرش في الإقدام ألف بالضحى آذاني والمس شغاف القلب بالفرقان ولسورة الإخلاص حسني أستقي من نبعها من نبعها الصافي عديم معاني افتهم غايق الفؤاد بآية ألف كرسي وجه العقل بالرحمن جلبي على آي الكتاب فإنني ترتاح نفسي بهما القرآن كم ليلة أمسيت فيها ضائقا صبري تقاسي حيرتي وقعاني فأقوم للقرآن يؤنس وحشتي ويضيء ظلمة ليلتي وكياني وصاحبي إن عز خل صادق وسرير قلبي لا يضن السلام والسلام ختام